tey ñu daje woon fii organisé woon compétition pour la, la petite catégorie comme nous ñu ko xamee ñun bon escrime actuellement au Sénégal gis nañ mu ngi xaw a sooxe lu bari moo waral ci suñu club dañu jël initiative quand même gën a aussi ci la la la crème madame Khalei, yi pour ñu màgg ak moom donc moo taxoon tey ñu doon imprégné leen organiser benn compétition ba nga avec avec les armes électriques parce que d'habitude ñun tàmmuñu ko ñu doon xam dañu escrime au Sénégal bi ñuy xale tàmmuñu woon di laal électrique mais ñom dañ leen bëgg a imprégné nga xamné ne dañu mën a teel compétition su ko defee bu ñu demee ci ci ci nasaraan di tiire ak ñom jàkkaarloo ak ñom nga xamné ne dinañ am loolu dinañ nek ci ñom ñu tam ko mu nek habitude donc mo waron tay ñu organiser ko aussi permettre ñu ñu xol par rapport ak club yi nga xamné ne créé nañ ko muy Jaxaay muy muy muy muy muy Parcelles Assainies muy euh, medina ak euh, Golf ñu xol liggéey bi nga xamné ne nañ leen ko ñu def ko ci saison bi fan lañ ci toll et vraiment am ci satisfaction bu baax parce que gis nañ ni xale yi am niveau bi et vraiment loolu lañ ci doon ursi ñu leen féliciter ñom ñep buñ tourner ci loolu aussi tay mu nekkon compétition bi nañ ko jagleel suñu xarit Emmanuel mu nekk nga xam ne nekk entraîneur sabre bi mu def liggéey bu am solo ça ça veut dire que ni moom bañ ak légui ci at la toll et quelque mais mu nekk ku jappalé club bi ci matériel ak lenen parce que escrime nekk na discipline nga xamné matériel dafa cher tamit sax bu ngeen démé ci touba bi ñi yor xaalis ñokay faral def mais mom vraiment jappalé nañ ci loolu ren ba joyu ñu lu bari ba déroulé nañ escrim nu mu waré donc emmanuel ñu ko doon défar adje euh, parce que dafa wara déllu wat benen dëkk mais ba légui mu ngi dess ci club bi nek membre hein di dox ci li doxal club bi donc ñu ko doon rendre au match donc en fin de compte loolu lañ ci wax ñi ci am satisfaction bu baax mais may terminer di remercier tout le staff technique vraiment ñu def ci liggéey bu am solo bu mucc ayib parce que neex nañu liggéeyal da leen di sante dara pare nek ci leneen ñom dañ koy def ba mu normal kon am Sen seen fay ñu ngi leen sant la la technique le staff technique et le staff administratif aussi donc loolu lañ ci doon def rek di sant ñëpp di fi ñëw teew si parents d'élèves yi di leen leen So that's going to be first, second period. Yeah. yeah. Shake hands. Après, ça va être l'épée junior homme. Ah, c'est mieux là comme ça ah, D'accord. On applaudit bien les, euh, les tireurs. On applaudit bien euh, les, tireurs. Merci, c'est bon. Ok, prochaine catégorie. Euh, les, tireuses. Merci, on applaudit bien les euh, jeunes sabreurs. Si maintenant Ok, on applaudit bien euh, les, jeunes sabreuses. Merci. Et maintenant, je vais demander à Madame Diarra. <laughs> on applaudit bien les, euh, les sabreurs juniors vous, merci. Big euh, round of applause for Saudat Kalanova from Uzbekistan. And then from Senegal, Kadiatou Ba et Assou Kamara. Ah, ok, merci beaucoup pour euh, être venu. Mama, kan? thank you あ